délégation générale à l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes DER di kuréel gi nga xam ne ni moom moo gàlloo saytu lépp lu jëm ci financé ñi nga xam ne ñoom ñoo di soxna yi ak ndaw ñi financement bu gaaw boo xam ne ni daañu ci mën réaliser seen ay projet ñoom nag ñëwoon nañ ci dëkk bu sell bi di Touba indaale sërite bu toll ci juróomi téeméeri million ci suñuy koppar loolu li nag aju ci programme bi nga xam ne nii DER li da koo jagleel diiwaan bu njaareem te mu toll ci benn milliard ci suñuy koppar enveloppe boo xamante ne président jagleel na ko région Diourbel mu toll si lu toll un milliard cinq cent quatre-vingt-deux millions six cent quatre-vingt-un mille quatre cent quatre-vingt-dix francs maanaam boo jëlee trente yu ñu jagleel délégation bi après région de Dakar ak région de Thiès région de Diourbel moo si tegu et boo jëlee si loolu aussi département Mbacké ak taille population bi am na si lu toll neuf cent quatre-vingt-quinze milliards millions. amin département Diourbel am na lu toll 283 millions et Bambey am na ci toll 303 millions et fi premier financement yu ñu def mooy le 6 août décaissé nañu lu toll 10 milliards ci 10 milliards yooyu région bi am na lu toll presque 500 millions bu ñu sukkandikoo ci kàddu yi Pape Sarr bi nga xam ne moom moo jiite googule kër nag ma ngay fësal ne atte bor fay ba tax na ñi nga xam ne ni ñoom lañ jagleel juróomi téeméeri millions yooyu lee nañu gaaw ca daar daar ba daal di fay li nga xam ne moom moo di koppar yooyu lee ngir ñeneen daal di mën a jariñu ci boobule projet xaalis bi prêt la bor la te bor fay la sant indi nañu tey lu toll 500 millions boo leen góorgóorloo remboursé ko fii ak fin ñu dolliwaat yeneen deux cent ba trois cent ba cinq cent millions ba un milliard yu mot te chaque année financement bi day renouveler maanaam ñoo xamante ne jot nañu mois bi am na ñeneen ñuy jot octobre am na ñu jot novembre am na ñu jot décembre ba année bi jeex deux mille dix-neuf ñu renouveler suñu enveloppe ñu amul ñoon tamit am. ci ndaje mi ñu doon amal ci sous préfecture bu ndaam nag ci teewaayu adjoint préfet moom Pape ma nga yëkkati ay kàddu daal di fësal ne kuréel gi nga xam ne nii moom moo di DER njiitu réew mi da koo teg ngir ñu daal di ne ñoom ñoo di jigéen ñi ak ndaw ñi ngir projet yi nga xam ne leen di mën a financé mu daal di cee boo xam ne nii toll na juróom benn fukki million ci koppari CFA yoo xam ne nii fas yéene nañ koo jagleel ñenn ci ay jigéen a defar café Touba xam ne moom la ñu dëgmal ci li nga xam ne moom moo di màggal Touba atum 2018